ñu ngi leen di nuyu di leen ziar tey nag ñëwati nañu reefan dem ñu ngi woon ngoogam reefan ak presse production mu boole woon Sabala ak Sa Thiès Sabala Sa Thiès daan ko jël bu leer tey ki nga xam ne nii moo di waa Samel Ndour ñoo ñu fi woo ci njiital ki nga xam ne nag mooy Seynou Ndour di xale nekk marché Tilène tey ñoo ñu woo fii ci ay combat yu nar a neex Talla Ndiaye Samel Ndour nga nekk nii maa xam nga Samel reefan am na Samel Ndour am na ngoogam am na Fudaay am na Ñañaar. am na cola bëri na bëri na reefan reefan tey daal ñoo ngi reefan Talla Ndiaye dañuy dem kay ci géew bi wan leen combat yi rek Talla Ndiaye géew Talla Talla kii mooy Seynou borom marché Tilène moom foromare la sax yaakaar naa de maa ngi lay bëggee. waaw Babacar maa lay bëggee. bal naa bal naa xaas tabaski bi. bal naa la Babacar. yàlla am nga jàmm. waaw am naa jàmm waaw. chaque année di tëgg fii ci 100000 Nour bi. bii mooy ñaata yoon ngeen fii dëgg. waaw bii mooy sixième édition waaw. ñu teg lam waaw fii c'est école terrain 122 waaw. tey grand combat bi kan ak la. waaw grand combat bi Boy Thiès ak Sa Thiès. waaw ñoo jongante tey waaw. drapeau kan. waaw drapeau Serigne Ndour nekk suñu grand bu baax. dëkk fii nag si ginnaaw rek soriwul tuuti. waaw dëkk si koñ bi waaw. est-ce que association mën leen xaar ëllëg ñu nekk promoteur national di tëgg ci lamb maanaam Sénégal yëpp lamb. waaw waaw pare nañu pour fu ne ci réew mi làmb waaw. pare ngeen pour loolu. waaw pare nañu pour loolu waaw. ñu dem ci kanam xool combat yi rek ba xam lu fi xew. waaw nañu dem ci kanam xool combat yi waaw. ok jaajëf waay Papa Gueye jaajëf. waaw maa ngi lay bëgg. mbalkami mbalkam cosaan la cosaan la waaw mbalkami moom dafa nekk loo xamante ne nii maanaam mën naa ne ñun ñii ñun ñii tombé tey jii bees bi sax mën naa ne maanaam dañ cee rek mais suñuy mag ñoo ko jëkkoon a kii mu léegi bu ma la woonoon drapeau bi di nga ci xam dara Babacar. ginnaaw bañ la nuyoo di rafetlu sa liggéey bu baax te nga ñëw euh, Touba fan ci lamb yi nga xamante ne ni mooy euh, saynu yi seen lamb kon dañ ci kontaan bu baax Babacar di rafetlu bu baax a baax sa sa teewaay ci làmb yi waa mbalka mi daal cosaan la nga xamante ne nii dafa nekk li nga xamante ne nii boo mësaa am problème da ngay ñëw toog foofu soo mësaa nekk ci bànneex da ngay ñëw nga toog foofu waaw looloo tax ñu dippee ñu li nga xamante ne nii ki nga xamante ni aussi moo nu ko dippee tam da ko dund dafa nekk lu mu dul am na bànneex toog ci mbalka am na naqar toog ci mbalka mi voilà c'est ça looloo tax. nga jàmm bu wér a wér lan moo tax nga ne soxna si du wax. soxna si du dafa bëri complexe dafa complexe waaw. mais noo gisee lamb ji fii Samel. lamb ji kontaan nañ trop suñ doom nday Seydou xam nga suñu ami d'enfance la yàgg nañ trop mu dëppee ñu lii suñu xol sedd na trop quoi mbalka mi moom lu yàgg la sombool la ci ñun Samel lañ dëkk may bare yoon. saafara lañ dëkk xam nga li wax waaw. Zarko dama topp taxaw jógal taxaw yow taxaw voilà. Talla Ndiaye jëlal lii Talla. yaa ma xool xale yi saamel yaa ngi nii noo tudd yow. yaa ma. lay. yaa ma. tey nga sa lamb ji neex na. kooku daa ragal man lay bëggee. tur bi. Ndeye. li ngeen sol nii nu mu tudd. lii 100 pour 100 Mbaye Feugeul la. 100 pour 100 Mbaye Feugeul. ah da ngeen di supporter seen mbër yëpp. Ah, li ngeen ko supporter rafet na de. <laughs> ok merci. Ah, ah. maa ngi am jàmm. jàmm ju bëri. da sa bopp wala qu'est-ce qu'il y a. non dama toog nii la fii rek. doo xool caméra. nii ngay ñëwee làmb yow. ah. gis nga simple ko rek. kan nga leen di ci làmb ji la tax a ñëw. xanaa sama chérie. moo ma indi si làmb ji waaw. noo gisee làmb Refane. neex na torop waaw. Adja bëgg naa la. yàlla si yàlla sant bu baax. xale yu góor gi laa ñëw a rey di samay rakk yu baax nag ma cofeel ci ñoom torop nag loolu moo ma tax a ñëw si làmb ji waaw moo waral teewaay. Adja woo. Oh. da nga am fii mbër buy bëre wala da ngaa ñëw seetaan si lamb ji lan moo di fii ji fii. lamb ji neex am ambiance neex neex na baax. sëñ ren defe def na ñetti combat di jël ci yonent bi di sant samay ñaari waajur maa ngi lay delloo ziar. ren def na ñetti combat. waaw am deux victoire benn défaite. lamb nga bëri reefantaan bëri sa dëkk daa metti xanaa a yomb bëri moo gën a yomb mituwul bëri sa dëkk moo gën a yomb gars yi naan bëri sa dëkk dafa sa bopp sa dëkk song la foo ko jàngee non man loolu dafa yàgg si man ak soo yàgg ci man la waaw soo jàppee rek da nga su ma jàppee noonu tollu mu jeex parce que noonu nga def ni si sa adversaire noonu nga ko def ñi ma fi daan ñëpp ni laa leen def xam naa ñooñu nga si jot a seetaan ñi ma fi daan ñëpp noonu laa def mais maa ngi sant sama grand yi sant Sayer Ngom Mor Diouf grand Sall Bour Petersen ak Petit Production maa ngi koy sant bu baax di ko ñaanal moom itam mooy loolu sama grand la da ciy jàpp bu baax Petit barke Sëñ Fall di sant sama grand saa Dollar ak Mortin ak Saynu di la nuyu bu baax yow ñoo far acca Talla Ndiaye jël dem ak Pape Mor Lo jël dem à droite Pape dafa leer ngi taxaw champion bu mag bi ci Bawol ñu ngi lewaatoo Talla Ndiaye fii ngay gis façon combat bu ne xeex daan ba pare duur la refan la am daan la ba pare duuraat la. loolu moom Babacar gars yi dañ cee war a wax quoi. dañ cee war a wax du yoon de. ndax mën nañoo gaañ nit. démb am na ñu ci gaañ ñu bëri. waaw ndax arbitre bu xasee bu suuf la combat ne jeex na rek. grand combat bi démb Sabala ak Sa Thiès. Ah. Sabala dañ ko daan ba pare ko kanam bi toj. loolu CNG moo ci war a jël. amul ci lamb. ah mais CRC moo géré fii CRC bu Thiès. ah mais loolu doy na ñoom Mamadou Seck CRC maa ngi leen di nuyu. nañu xoolaat ñoom Pape Mbaye loolu du yoon. mbër soo ko daanee bëre pola ko daan wàcc taala. daw na jëli ko mu xeex uppercut ya. eh jël na ko jël nañu Pape Mor yow jël na ko door ci suuf mu bañ. eh Talla Ndiaye waa xoolal lii eh Talla xale bi mën naa bëre de. Talla kii mën naa bëre de. Talla ki raw na la de. taala ki yàlla dàq bëre de taala mënoo lii yëkkati ba mu weex. mu daal di daal di jëppeeluwaat. ne ko doo dooma daan. bëre kan la. Ah, waaw xam nga da saaru xale yi waay xool bu ñuy nekk bu ñuy nekk gone dañuy dañuy ëf. waaw ay mbërëntaan la ñuy doon. waaw dañuy am bëre bu sew. mooy mbërëntaan. ndox tu bëre la ñuy yor. ah ñooñu mbërëntaan. xam naa senegal nag defar téere mbër fi gën a dox. ah man de dinaa nekk sëriñ. bëri li ñuy tëkk ci téere ay ay ay ay ay na ko tey dalay daan tey dalay daan eh, ku ko de taala daana ku ko de taala booy bi mën naa bëre de. kot na ko mu ànd rëpp trois appuis daan na ko jaxabal bu rëy rëy rëy waaye Talla Ndiaye xale mën naa bëre de Talla Ndiaye kii mën naa bëre de e kii jinne la kat kii maa du jinne gu jóge ci Dakar yi kii maa du jinne ju jóge ci Dakar yow ay Dakar la wër de booy bi naayu ci kii bëre kat la yaa yay daanu xaraan bu fet jaxase ko ñu ngay lewtoo de arbitre soufflé na ma fa leen wan ruube ngeen jàkkaar lool ma fak ruube ak maf moom lu doy waar la bu dee xam nga lu dégg maf ruube kat moom lu mu fekk jaxase ko day ñëw ci làmb ji sax ne da koy ruube. ruube ak naf ruube saat wala naf saani na droite ñaari pied droit lañu nag boo xoolee. vraiment. xeex na yee Talla mbaa du ko mu daanu jël ko daan na ko eh! ruube daan na maf ruube ruube na maf daan ko Talla Ndiaye ruube ruube na ko daan ko ruube na maf daan ko Cédric jigéen a nga ngi dëkk Réfane moom ci 100 pour 100 Babacar bi la bokk ginnaaw bi mu la nuyu siyaar la bala la ak mbaa ngi am jàmm waaw maa ngi am jàmm baax a baax a baax naka yëngu sant Sëñ Tuubaa baax ñëw fekk fekk la sa fekk si la sa dëkk Réfane looy wax 100 pour 100 Babacar bi et looy wax waa làmb waaw di kontaan si ñëw gi nga ñëw fii di kontaan si 100 pour 100 Babacar waaw di ziar ñëpp ku mel ni Frédéric Marcel Ndour borom yàlla saaxoor di bëggee grand pape grand di bëgg gaa yëpp daal di kontaan si ñoom Mass ñoom euh, gaa yëpp daal ku lim juum ñoom Simon waaw grand magique sama champion bu mag bi maa leen di bëgg bu baax di leen ziar waaw di kontaan si ñëw gi bu baax a baax sama dëkk nga ma fekk tey ma kontaan si bu baax a baax a baax waaw. ana Mbaye ak moom. waaw Mbaye ak moom mu ngi fi mu fi mu ngi si jam bu baax a baax a baax. dégg naa waaw waaw dafa leer dafa leer Mbaye ak moom mooy loolu yaa ma gën a xam. Ndeye Fatou dégg naa soo wooyee nga may. waaw Ndeye Fatou bu wooyee damay am lu may yëg mais Mbaye ak moom kenn du moom waaw barki dem toj na si simal waaw waaw waaw. yaa ngi woon simal. waaw waaw waaw. ay jigéen gis nga. jigéen ñi. naa la. non foo ma ruube gars yi ndelo ah. waaw waaw. mais waa est-ce que ruube wu la waa daa mel ni jël nga kuwam de. non waa ji boobu laa bëggoon pour pour ma songo ah. bu ma ko songee rek mu jeex waaw. mais bi nga ko jëlee kawatoo. non non kawatoo ma yeguma dara sax. Ah. bilaay. bi nga wàccee noo def. ah bi ma wàccee gis nga rek ni ma def. dama xam ne yàgg yàgg dama koy song bu ma dooree mu door ma dama koy song waaw man xeex andiwu ma ci laam ji de. man écrit nga ne. laa nekk. waaw. bëreegu ma Dakar wala bëreegoo fa. non non bëreegu ma Dakar. sama deuxième combat. benn défaite benn victoire. waaw waaw lan mooy sa métier. man sama métier damay damay jàng dawal odo waaw waaw Paterson. oui. ci Ndiaga Ndiaye yi nga ne. non non ci taxi bagage yi maa ngi sant waa Patal seen ñëpp bu baax nag waaw waaw. loo bëgg a doon ci làmb. man roi des rek. est ce que doon ko yomb na. waaw bu soobee yàlla lu yomb lay doon waaw. may sa grand yi ñoom Aliou gis naa ñu wër la. maa ngi sant ñëpp ñoom Aliou ñoom Balalour mbay Diouf mbay Diouf aw ma fayam Mbaye Diouf ñoom Ibou Sumwaay maa leen di bëggee Roubé Mamour yi ñëpp Mamour Dokosin sama grand Jibi Toyota ñoom Mambay ñëpp Ablaye Sénine bàyyiwuma kenn. ku ma limut rek damaa juum balal nuur nag aw ma am ñoom Mbaye Diouf waaw di sant lew mii nag di sant lew mii di sant bébé xos bu baax a baax a baax a baax aw ma am ñoom Ousseynou Karbalaay ñëpp soosu kaane mii aw ma seen fay bu baax jaay ak maam Cheikh maam Cheikh Ngom Couture aw ma fayam maa ngi koy fàtte sax waaw waaw ñoom Youssine ñëpp ñoom Youssine bilaahi waaw waaw. kon boo ñëwee bu ñu ñëwee Réfane fekk ko fi moom mënuñoo ñëw te waxuñu ak moom bëri na ak champion ñuy coow ci làmb yëpp ëmb seenoo. Baye ma Ndiono Ba Boyo macha allah bari na mbir yu mu mbay maa ngi lay bëggee. Ah, Babacar maa ngi nuyu. am nga jàmm. bu baax a baax. naka tabaski bi. waaye neex rek. xam nga li ci gën a neex mooy nga tabaski sa dëkk. te fii fii magge màggee fii laa cosaanoo fii laa defee lépp. muy reefan muy dëkk boo xamante ne nii dëkk bu yéeme la daal ci histoire parce que fu Seexul Xadim julli rek dafa doy sekk ci histoire ci net li ci li ma ci xam nag bariwut waaye mag ñi euh, wax nañu ñu ci lu bari daal. moo tax na dëkk bu doy waar la daal. kon daal sa tabaski neex na macha allah. torop torop Babacar. barki sëñ Fall ana soxna si. soxna si mi ngi ci jàmm bu baax mi ngi ci jàmm. kon daa waaju ko dellu Dakar dem bay. waaw faw ma def fi xam nga nag laq yaram bi tuuti comme ndakaaru pression la te xam nga coono yi day bëri faw ñu euh, mbasa mbasa tuuti quoi. oui. mais lamb fii yow mos nga bëre fii. non fii bi mosuma fi bëre parce que bi lamb di xew fii boobu fekk na xam nga rek maa ngi Dakaru nekk booy maa ngi Dakaru nekk booy. xam nga boo nekkee booy nekk ndakaaru boobu booy dem euh, bëre du la yóbbu da ngay dem pour liggéey xam nga rek après fii su lamb ba ma demee Dakar la ma dugg fa la ma duggee waaw. mais lamb fi noo ko gisee. waaw lamb fii neex na mais euh, nañu nañu kii organisation bi tuuti parce que géew bi day bëri nit de trop mais bu fekkoon ni géew bi euh, mbër bu ne day ànd ak ñaari nit day neex quoi aussi muy muy teel a commencé quoi parce que guddee bi day xaw a day xaw a yàgg quoi parce que day dem ba ay 11h lamb 11h ci guddi fi ay xam nga day day doy waar daal wóor non wóor na sax parce que dëkk bi ñëpp a xamante fii jàmm rek a fi am mais maanaam dafa am ñoo xamante ne dañuy bëgg a ñibbi xam nga dallu ji tuuti xam nga waxtaan ak seen waa kër affaire yooyu quoi mais su fekkee guddi na nag loolu doo ko mën quoi. Uh-huh. mbay daa bàyyi lamb wala bàyyi non mbay bàyyiwul lamb boo xoolee mbay instant bi bàyyiwul lamb damay xaar si sama page rek ma defal booy yi nga xamante nii booy yi ne nii lañu ma defal leen bagage bu tuuti rek laal ci trois booy yooyu rek waaw. kontaan ci yow am ma ñoo ko bokk yow ku baax nga. jaajëf Babacar jaajëf. ñoo nga ca la lewaatoo Marley à gauche Ama à droite Ama ngemb bu verte Marley weex Marley nag li mu takk ci téere bari na moom ak i pettaaw ci tànk yi. taala nga yaakaar sa lumière mu ngi koy dóor de di ko koj Ama xeex a li daal laa wóolu ama ak marle ta li daal sama xel man xeex ana wàcc songu daw nañ jàppante loxo mar la fa mu mar la fee muy dugal loxo droit am boobu mbaa bu duggee Ama dina baax loolu mbaa wóor waaye ku ne sa loxo droit a jàpp mu ngi koy dóor uppercut ci faar ya wala boog mu ngay lamb fàmb ya de ñu nga ca laa ilaha illallah maa ngi leen di bëgg de fii la ëppee jaajëfati arbitre soufflé waat na de Marley koy gëdd de Marley jël ko Marley jël na ko Marley jël na ko jël amagul de jël amagul de sotti na ko mu bañ eh bëreel jël amagul jël amagul bëreel ama ama bëreel jël amagul ama bëreel jël amagul ama bëreel koy dàq eh mu koy dóor de. ah ilaa ilaa ilaa eh Talla Ndiaye kawoo Talla Ndiaye lii saf na waay waa lii lan la nii booy yi waa booy yi nu ñu jëfante nii ay booy a ah police yi dañuy taxaw sécuriser leen. waaw waa gendarme yi moom maa ngi leen di jaaraamal de liggéey bu am solo la ñuy liggéey rafet. waaw lii di dóorante ñu dañ taxaw di xool. Ah, waaw ah li li bi dóorante dañ ko autorisé. gendarme na ko daan na ko daan na ko daanoo gul eh Talla Ndiaye waa gune yii. mu ngi koy gëdu de Harko, harko, harko, laa ilaha illallah war na ko ndomboo buddi dóor ci suuf mu daan waaw taala buddi nañu ko dóor ci suuf oh xool ama waaye taala lii mooy waaru na loo fi wut waaye fii tey sama rak moo fi andi carrière doo carrière bu Samel tey moom ma andi tey ah da nga am ku la ku jël boobam tuddal waaw carrière de waaw kar sa kii moom sama lépp la vraiment dafa jël lépp jox ma ko ma koy ñaanal yàlla may ko ndam lu rëy di sant sama doomu nay mbay si ta bu baax a baax. muy bëreel carrière de. moom duubul daf lay bëreel mais ñoom ñëpp benn lañ parce la quoi. waaw mais serpelé rek na nice quoi. yow ñoo far amul benn problème jaay Babacar ok. carrière bi ak double eh, door na carrière takk na ko eh daan na ko daan ba mu jaaxaan double dof waaye double dof nag yow itam xanaa da doon dof dof lu ba teeyoo carrière yóbbu na ko ca carrière ba. laa ilaha illallah ay waay yàgg na ngaan lan jiga foo nekk yow lu xew daanu na ko a xam nga nag reefan moom jàppal na président mi ak Seynou mi ñoo fi nekk di jàppale mbër yi kii moom defe naa waxuma sax reefan waaye defe naa sax ne addina ah, xam nañ kat mooy président mais nag olof a ko wax feccum liir bu neexee nday jaay jàpp sa mbagg te Seynou dafa mel ni làmb ji mu réussir daa mel ni président dugal na ci loxoom mais xaaral net li moom si làmmeñu borom lay dàq Seynou maa ngi lay bëggee waat. waaw Babacar maa ngi lay rëbbëggee comme ni nga ko waxee rek président da sama grand bu baax nekk si koñ bi di teg lam aussi ñun xëy na yoon bi xëy na si moom lañ ko gisee quoi nekk xale di teg lam si moom lañ ko gisee waa idole la ci ñun mais maa ngi koy sant bu baax barke yàlla kii lu ne daj sama lam ji ànd naa ak man fu ne ngir sama lam parce que alima naa ba am problème mu sécurité moom moo si jàpp yàlla ak moom la parce que Cheikhul Khadim a wér si àdduna na la ko yàlla defal ci barke Serigne Saliou. Brésil yi daw na yaram de. non daw na yaram ñu ngi leen di nuyu yéen itam wàllu nan TV Leewtoo TV di gërëm sunu boy bu baax parce que kii lu ñu ko defal daf nu war parce que yow kenn werantewul euh, ne xam nga sama diggante ak ba papam Bada Dione kii dama ne ko ñun defaluñu la dara. parce que fi nu jaar ak jon lii ay ay message yu ndaw la rek ñun defaguñu dara di profité di gërëm sama waa group bi parce que itam Crazy Production du Louis Ziré ñii ñoo tax parce que équipe bi ñoom Aaron Ibou ak Boy Mo bi ñoom itam dañu ci liggéey lu bari te kii itam dafa nekk xale neex a jàppale parce que doo nekkee xele mën a dégluy mag concurrence leen topp seen ginnaaw ñu digal la ñun looloo nu war kii tëgg lam amul sécurité ñun ñu ne ci gox bi loolu suñu cër dañu ci ànd ak moom ba li mu ci bëgg mu am ko cent cent yow itam ñi ngi lay ñaanal ba fépp fu nu nekk ñun di tëgg lam nga dem ba supérieur nu sax ci wàllu organisé waaw kontaan nañu bu baax jërëjëf. donc Rési ma de bëgg naa la doomu yaayu maas ko kii. bu baax ñu wax ko. juddu wu ñu ndéeg bàyyi waaye fu laa fay de borom bàyyi. doomu yaay asili ndur man de na mu naala ndur waari mbergaan yóbbu rësi yaay doomu yaayu mas bokki jam dara ji bàyyi sa kaleer boo ko déggalee bu la yaay mayee ñax la waaye bu la bàyyi mayee ñax la yaa ko moom sa yaay da gërëm sa baay da laa ñaanal a boo resoo fee na droite o a koy ka du Boy Rassoul koy gëdd de Boy Rassoul koy gëdd de Odinga foo jëm Odinga taxawal Odinga foo jëm Odinga foo jëm laa ilaaha illallah daan na ko jël bu rëy a rëy loolu rëy na la Talla Ndiaye loolu rëy na de wala loolu daa mel ni rëy na bu amee de Koné Talla Mbégane Bulok 709 Mbégane wane na ginnaaw 709 ngeen jàkkaar lool ah dinaa dellu ginnaaw de ndax ñii moom eh Mbégane daw na jëli doole doole xalaat naa ko ci de doole wala lan wu ndombo doole bu di jàpp na ca buur ya daw ba génn door na ko Mbégane door na 709 foo jëm Mbégane foo mbegaan nag koy tóor de tóor na de boo xoolee mbegaan nag trois di muy dal de tóor na ko de tóoraat na ko laa ilaha illallah tóor yi dal na de Talla Ndiaye yi dal na de Ndour mi Mbega Ndour mi am pànk la de Mbega Ndour di ngi dóor 709 rek parce que pied droit bi Mbega Ndour bi bi 709 jiital looloo ko ni problème da lay takk da lay jaay doole Eto Eto voilà jàppante nañu de jàppante nañu de ni ngeen ko yombale yombewul noonu de yàlla booy seetaan day yomb ci yow waaye fii réalité fi nekk de Eita, lá! dajale na ko de yéen daan ñëw maa ngi nii kenn ay jàppooy puy numéro arbitre soufflé na Ama ak Boy bu Samel Ama say mbokk la tëgg ngay bëri ci sa dëkk am nga sas tay sas waaye ki ñu ko seqal ala ko fàllu eh Ama jël na ko Ama daanu na Ama daan nañ la ama daan nañ la ama daanu nga lewaatoowaat arbitre bi mu ne jël amul arbitre bi ne jël amul waaye jaaraama waa gendarmerie seen liggéey ci réew rafet na waaye rawatina reefan gii ma fekkante ñun démb ak tey ñam na ko góos amaatee nga xool li ngay song kii ngay bëreel daa mel ni bërekat la de taxawaayam bii ama ama jël na ko daan nañu ama daan nañu ama mu saamel ci biir saamel daan na ko ci biir saamel bii jël di laa gën a leer man kay wax naa la ko na ko moytu ki muy bëreel bërekat la tur la. Sa Thiès bu coow. ku yóbbu de. day gaaw wala day yéex. fi mos naa fi quatre fois. mooy cinquième bi. fii laa jógee coom. dëgg bu ñuy wax coom fii biir Réfane. dëgg la Babacar naa la. ba am na jàmm. am naa jàmm waaw. sa waay nee de. jëlum kaw laa koy daan. waa Thiès ak waa Xombol dañ maa yem. jëlum gaaw laa koy daan dañ maa yónni yaa xam ko ma. mos ngaa bëri fii di sant ak ak ak ak Fallou Mbaye dama daan jëlum gaaw di sant Mbaye Gueye ak ak Baye Yoro ak ñëpp. armée suuf la na ndeysaan Sa Thiès ak Boy Thiès Sa Thiès Boy eh, na jël ko daan na ko laa ilaha illallah jël baa ta te gaaw jël baa rëy te gaaw daan Talla Ndiaye jël ba na te gaaw mbër maa ngi lay sa maa fay félicitations Sa Thiès merci beaucoup merci beaucoup bi gaaw na de non kii duma moroomam war na Serigne Touba ma xam dam de rek du lam ji xamoon naa ma ko muy lépp topp sama ginaaw barki Serigne Touba fii ba suba duma daanu barki Maam Serap Fall. ñaata combat nga bëri fii. mooy sama cinquième combat fii. ñaata victoire. am victoire benn défaite. waaw ah. bëri nga Dakar. déedéet bëreeguma Dakar de dama déedéet. kon sama garaat bu baax ma fiyaa war na Serigne Touba day sonn ci man xeebuma benn yoon war na Serigne Touba maa ngi koy sant baax koy sant bu baax di sant sama gars yi di sant mafia coom bi yëpp di sant sama gars yëpp war na Serigne Touba ñu ngi nii ñoom ñooy association des jeunes jàmbaar de Samel Ndour ah, ñoom ñoo tëggoon làmb ji maa ngi kilifa maa ngi lay fay di nuyu sama mbokk yi ma àndal nii sama màgg yi di kuumi. ñoom Moussa ak euh, ñoom Saynu sama gars yi ku lim juum euh, maa ngi leen di nuyu di la fay. léegi lamb ji jeex na ci lu rek lu ngeen di wax pour déwén incha allahu yàlla nañ ko fekk de tal xanaa kontaan ak mbégte di bégg trop nag ci yow ak ci ñun ñii nga xamante ni ñoo géré lii nga xamante ni métti woon na trop nag parce que looy dugg lu ne dañ ciy am ay tolof tolof mais saa yoo ci euh, jàmbaaree rek yàlla dina la ci ubbil bunt te wax dëgg yàlla yàlla ubbil nañ li bunt ñu ngi koy gis. kontaan nañ ci bu baax a baax a baax a baax ñu ngi ciy gis suñu bopp parce que wax ji bëri woon na trop mais nag vraiment xale yi jambaar lañu ñëpp jambaar lañu carrément Babacar ok.